Ibrahima Sarr ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay madame. nga yor tey kàddu groupe euh, de la poste tey. Euh, ñu dégg leen ngeen di ñaxtu di wax euh, état mu fay leen bor bi la jógee. waaw bor bi ñuy bor ñuy wax mu ngi jógee ci ñaari ñaari hmm. benn bi moom mooy que poste partout au Sénégal moom mooy assurer le paiement des bourses de yàlla. Hmm. ku nekk xam na ni politique sociale bu am solo la buy dimbale néew du doole ñu mën a euh, euh, jànkuwanteeg jafe-jafe àdduna yi bien que ni lu ndaw la mm. mais loolu post moom moo koy fay depuis depuis toujours mais dañu constaté deux mille deux mille dix sept ba deux mille dix neuf poste dafa engagé xaalisam fay mm-hmm. lu bari ci bourse familiale yi ñu ngi koy xayma ci environ quarante deux milliards mm-hmm. xaalis boobu noonu ba léegi état bi delloowu ko ko boo xoolee aussi post ci ni mu tëggoo ak li nga xam ne moom la ko état bi jox ah ko ko comme mission ko utu ci gox ak gox goxaan yi di koy rendre un service public euh, postal mhm. maanaam wutu ko ci population yi di leen di jox li nga xam ne moom la ñu yelloo ak état loolu war a mën a tax ñu war a mën a nekk fépp ci Sénégal boo xoolee ci ay zone yoo xam ne sax mënuñu fa yaakaar bénéfice des mhm. zones non rentables hmm? mhm. ñu di participer ci aménagement territoire di am rôle bu mag bu ñu jouer xam nga pour le compte de l'État loolu nekk dans une convention de concession boo xam ne daf ñu lié ak état bi loolu di jur ay ay ay ay ay ay ay jafe-jafe mhm. ci suñu résultat d'exploitation maanaam euh, daf koy daf koy wàññi mhm. parce que coût yi ñu ciy supporté eh, dafay grever suñu résultat d'exploitation parce que boo demee foo xam ne foofu mënuloo fa yaakaar bénéfice globalement dafay impacter ci sa résultat d'exploitation état bi war ko fay pos loolu ñu xayma ko woon ci un milliard trois cent mais xam nga ni Eh, jamono ni muy doxee ak érosion monétaire bi ak li nga xam ne moom la laaj tey jii nii pour mën a implanter wu un peu partout au Sénégal boo ko xaymaa dafay dafay dafay dafay ëpp loolu ñu ñu def comptabilité analytique boo xam ne. Mhm. coût yi estimé nañ ko à onze milliards cinq cent. AFTP ne loolu balaa ñu ko valider ñoom foog ñu expertiser ko. mais 2013 ñu d'accord ak état bi ci convention de dette croisée bi nga xam ne si nañu ko ñoom dinañu jëlee montant boobu noonu un milliard trois cent par an yóbbu ko six milliards sept cent quarante quatre millions par an mais loolu dafa am ay arriérés yoo xam ni état bi fayu ko de deux mille dix sept à deux mille dix neuf boo ko xaymaa toll na ci vingt milliards. loolu yëpp boo ko boolee dina mot soixante deux milliards environ. loolu boo ko jëlee ci gafaka kër goo xam ni poste comme poste. Mhm. nga xam ne yëngu-yëngoom ak li nga xam ne mooy jumtukaay yi nga xam ne moom mooy li moom lay liggéeyee xaalis la parce que moo koy permettre mu mun a def transfert d' yi mais def ay opération caisse nationale d' épargne def ay opération CTT ainsi de suite mën a vraiment pour investissement yi nga xam ne war na ko def pour mën a méngoo jamono mën a dabu bëgg-bëgg askan bi loolu boo ko jëlee ci kër gu mel noonu dafa koy andil ay soxe loolu gis nañu ni tey dafa am loo xam ne daf ko jur ci suñu suñu boo xam ne dafay wàññeeku ñu gis ni nañuy liggéeyee ci bureau de poste yu aussi mhm. dafa nekk au ralenti am na bureau yoo xam ne sax du ñu du ñu fonctionner loolu di exposer liggéeykat yi ci meru xam nga clientèle bi nga xam ne ñoom lañu war a servir à chaque fois que de besoin et loolu dañu ci dañu ci néew doole lool ñu gis ni dafa jur njàqare ci ñoom parce que gis nañu sax ba ci li nga xam ne mooy suñuy payoor mm-hmm. léegi dañu koy jot ci ay yéextal yoo xam ne mosuñu ko mosuñu ko xam maanaam dat yañ ko doon jot tey jii nii dañ koy dépasser de très loolu nag moom moo tax liggéeykat yi di yëglu wax état bi ne bor yooyu daf ko war a fay mais au delà de ça état bi dafa am lu mu warloo ak poste parce que poste li nga xam ne moom lay jébbal askan bi loolu état bi la war mhm. donc loolu wareefu population yi la donc mu war ko accompagner comme ni muy accompagner yeneen société nationale gis nañu ni RTS boo demee Sénélec nga dem Dakar dem dikk nga dem Sonacos état bi ak bu jot daf leen di jébbal subvention maanaam mën nañ ko tuddee ndàmpaay te loolu mosuñ ko gis pos defoo ndàmpaay yooyu ba pare bëgg ko yan loo xam ne attanu ko mais yaa ngi koy nërmel te boo ko nërmelee maanaam di nga gis euh, quatre mille trois cent personnes yoo xam ne tey ji ay père ak ay mère de famille lañ ah dañ leen di jéem a xañ li nga xam ne moom mooy seen suturluwaay maanaam seen i emploi kon monsieur Sarr bu déggee ngay wax hmm? chiffre d'affaires poste day gën di wàcc at yi waaw mais dafay gën di wàcc mais naturellement naturellement su fekkee ne liggéey bi nga xam ne activité yi nga xam ne moom la ñu waroon a développé mhm. pour mën a yokk suñu chiffre d'affaires loolu mhm. développé wuñ ko par faute xam nga de fonds loolu naturellement dafay dafay dafay dafay dafay ñëw. daaneel suñu chiffre d'affaires. ndax li ni mel jiitalu leen. ñu privatiser poste. ah privatiser moom loolu loolu beneen beneen beneen wax la hmm. mais quand même euh, ci li nga xam ni moom la ñu nekk nii ak li nga xam ne moom la moom la ñuy ruumandaat hmm. mais liggéeykat yi dañuy ñaaw njort que ni état bi daf ñu bëgg imposer une restructuration de fait. parce que bu ñu demee ba finalement la ñu mënoon ak la ñu warlu woon ak askan bi mënatuñu ko def. Mhm. mais naturellement bu ñuy ci juriante tamit dañuy ñëw imposer ñu loolu looloo tax nag travailleurs yi jéem a yëglu yëglu pour ñu dégg ñu. ñi ñuy dégg moom mooy autorité étatique bi mhm. mais aussi population yi dégguñu dégg ñu parce que nag population yi bu ñu réeree mbir que poste bi ñoom ñoo ko moom ñoom ñooy les premiers actionnaires te li nga xam ne moom la poste bi di liggéey loolu ñoom lañ koy jébbal mm. bien que état bi moom moo ko warloo ak ñoom mais poste moo koy def pour le compte de et au bénéfice des population donc population yooyu dañu am warugal ci poste bi war ko sàmm war ko saytu waaye jéem a fexe ànd ak liggéeykat yi. Mm-hmm. ba li nga xam ne moom la ñuy liggéey mu méngoo ak seen i bëgg-bëgg parce que boo demee partout dans le monde. Mm-hmm. ah poste yi mais dafa am rôle yu essentiel yoo xam ne moom la ñu fay joué moom la ñu fay joué mais tey ji euh, projet bi nga xam ne moom la ñu gis Sénégal c'est comme si dañu ko bëgg a nërmeelal te loolu liggéeykat yi duñu ko nangu. Mm-hmm. duñu ko nangu eh, te dinañu ci def seen kéemtulaayu kattan. waaw xoqatal yi ñu fi gis démb nag. ak intimidation yooyu loolu je pense que ça va passer. Mhm. ARTP mu annoncé benn mission d'évaluation ngir nag euh, d'évaluation comptabilité bi. méngoo code euh, des postes. Euh, tey jii ndax yaakaar ngeen ne action stratégique boobu dina am lu mu soppi jëm ci réguler secteur bi ak it seen soxla. non loolu loolu lu mu waroon a def depuis très longtemps. Mm. parce que ñun dañu jàppoon ni. la nga xam ni moom la ñu état bi war a fay en terme de rémunération du service public ci mm. li ñu koy wuutu ci mission bi nga xam ne moom la ñu confié dafa woon lool par rapport ak ñun li ñuy supporter en terme de coût mm-hmm. mu ne ñu nag loolu pour ñu xayma ko ARTP ne pour ñu xayma ko il faut ñu def benn système de comptabilité analytique boo xam ne dina mën a évaluer xam nga les coûts supportés loolu poste def na ko depuis 2017. Mhm. ba def test yi def génne ay résultats bi ñu évaluer coûts yi ci système boobu noonu mën na onze milliards cinq cent mu ne nag loolu balaa ñu koy valider moom il faut mu expertiser ko 2017 ba léegi ñu ngi koy xaar andiwul ci ba léegi. réforme finance restructuration financière yi ci pàcc bi nga xam ni mhm. dañu ci war a euh, xayma waat rémunération de services publics loolu daf ko bloqué woon donc tey bu ko bu ko waxee ne ne ne ne ne teg na ko pour évaluer ko ñun dañ koy saluer mais wax ko aussi mu gaaw ci parce que loolu bokk na ci li nga xam ne mu ngi gàllankoor xam nga euh, développement poste mu ngi gàllankoor poste ci ay mbir yu baree baree baree bari e que bu ñu ko tegee je pense que li nga xam ne moom la ñu calculer ma je pense que bu ñu ko audité dina méngoo ak li nga xam ne moom la ñu waxoon donc loolu dafa am lu bëree bëri lu ci war a gaaw loolu nag bokkul ak li nga xam ni moom la war a taxawee. d'accord mission première moom mooy réguler secteur bi. Mm-hmm. réguler ko de manière beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable. ndax da ngeen cee gis ay gis nañ ba tax mu ngeen wax loolu bien sûr mm-hmm. bien sûr gis nañ dans le domaine du Eh, mm. tey on est seize opérateurs opérateurs yoo xam ne dañ leen di jox licence maintenant le code des postes ñoom dañu war a fay ay redevance annuellement pour mun a constituer le fonds universel xam nga des postes mm-hmm. nga xam ni opérateur historique bi nga xam ne ñun la muy poste ah ñun ñun dañ ko war a dañ ko war a bénéficier wu mais gis nañu fonds boobu ba léegi ba léegi taxawul gis nañu ni aussi am na ay opérateurs yoo xam ne ñoom mën nañ leen faire des opérateur ay société écran yoo xam ne dañuy def xam nga loo xam ne suñu suñu si ci kii bi la nekk maanaam dañuy évoluer dans le domaine du courrier mm-hmm. te kenn waxu leen dara gis ay société yoo xam ne sax dañu leen di jox ay ay marché mm-hmm. yoo xam ne dafay entrer dans le dans le dans le domaine du courrier te duñ ci duñ ci wax dara mais boo demee dans le domaine des services financiers aussi tey gis nañu ku nekk rek ay ay start-up ñu ngi jóg ñëpp di évoluer dans le domaine du des transferts gis nañu sax ay société de télécommunication nga xam ne dañu investir ci fonk boobu noonu jël investissement yooyu noonu utiliser ko di def dans le domaine financier kenn waxu leen dara ñu nekk dans une position dominante ñun dañu ni loolu nekkul concurrence mais c'est plutôt une agression on est agressé dans nos deux domaines xam nga d'activité. d'accord et que loolu ARTP day war a jël ay mesures. parce que état bi moom moo jël dogal ubbi marché bi. Mhm. libéraliser secteur bi. mais état bi moom moo am warugal ah fexe ba ah <laughs> marché boobu noonu. Ah, ñu ngi ko. Mm-hmm. pour que mu bañ am ñenn ñoo xam ne dañuy wan ñeneen. d'accord bu weesoo mu nga xam ne moom la ñu fa fekk. Mm-hmm. mujj yi ñëw dàq ko fa nga xam ne moo ko sosoon ba ba ba ba tey ku ci nekk gis ko mën ko bëgg. ñeme ko donc loolu waaw. waaw bu weesoo concurrence déloyale bi ngay dénoncé nii tey gis nañu ne defi yi bëri na sànq yaa ngi koy wax yéen a ngi am mm-hmm. tamit yeneen concurrence muy euh, jëm ci. Euh, nouvelle technologie bi ngeen war a adapté wu am yu bëri yi nga xam ne poste tey euh, engage na ko euh, ndax xaalis bi bu teewoon am ngeen yaakaar ne di ngeen mën a répondre wala sax ngeen jox askan wi loolu waaw ñun de ñun de ci suñu biir mm. liggéeykat yi def nañu ndëpp pour xayma situation bi xool li nga xam ne moom moo ñu andi fii suñu responsabilité am na ci loo xam ne responsa responsabilité poste la en terme de gouvernance et de pilotage mm-hmm. am na loo xam ne responsabilité état bi la wax naa ko li nga xam ne nag moom moo ñu war ñun dinañu ci taxaw lañ ci war a taxawee eh, jàpp nañu ni aussi am na loo xam ne tëgg nañ ko lu demee ni plan stratégique xool ci ak deux mille vingt cinq ah. naka lañu war a doxalee identifier ay axes yoo xam ne war nañ ci mën a investir pour mën a méngoo ak jamono loolu nag dafa laaj ci financement parce ah. que ni loolu bu ñëwee ñu sellal yorin bi et que ñëpp nekk au travail incha allahu rabbi dinañu mën a xam nga soppi post bi mais méngale ko ak la nga xam ne moom la war a taxawee comme ni post yi di taxawee ci àdduna bi yëpp loolu nag réponse ci état daf ci bokk. Mhm. parce boobu noonu am na ci volet yoo xam il faut le financement de l' pour accompagner la poste dans ce domaine. d' monsieur Sarr merci beaucoup. c'est moi qui la nga yor kàddu groupe euh, de la poste yi nga xam ne jamono ji ñoo ngi doon ñaxtu ngir état fay leen seen euh, bor bi mu leen amel